dikk ci li nga xam ne moo di sakkaatul fitri moo di asaka yi muurum koor muurum koor ñu war koo waxtaane tuuti rek def ci benn détail bu ndaw bu ko defee ñi nga xam ne ñooy jullit yi ñu génne ko képp koo xamante ni yàlla mën loo na ko loolu lu war la pour nga génne ko borom xam-xam yi wax nañ ne képp koo xamante ni mën nga ko te génnewoo ko dañuy aj sa koor ca kaw ba kër ngay génne muurum koor muurum koor nag doon loo xamante ni day sellal day laabal ruu day laabal li tamit li nga xam ne moo di sa koor gi nga xam ne da ko doon dañ def loolu daf bokk ci li koy laabal bokk na ci nag ñi nga xam ne ñoo ko war a génne mooy ki ko am ki am ci jamono yi nga xam ne am na ñoo xam ne dañoo wax ne bu desee ñaari fan balaa ñaari fan ya mën nga koo génne am ñu wax ne tamit mën nga koo génne lu jiitu loolu waaye li gën a lëng daal te mujj mooy soo koy génne na nga ko génne bala ngaa julli ji ngaa julli nga xam ne boo koy génne bala ngaa julli ji eh, na nga ko génne waaye bu fekkee paase ne génne gi nañ julli ji nga ba noppi soog koo génne loolu mu doonatul muurum koor moo tax ñu bëgg ñu koy génnee ñun koy génnee nag mooy képp koo xamante ni ab dundam yow la war kooku war nga koo génneel su fekkee ab dundam yow la war su fekkee mënu ko su fekkee mën na ko nag moom it mën na koo génnee su fekkee doom joo xam ne dafa mën a am alal am ko mën koo génne mën na koo génneel boppam su dee soxna su ko mane tamit mën na koo génne waaye yow daal yow moom war na la ci ñooñu nga xam ne yaa leen di dundal am nañu wax nag ne ki nga koy génneel ba ci liir bi nga xam ne dafa gane àdduna bu nee suba la parité tamit kooku da nga ko war a génneel am na ci borom xam-xam yu ñu xóotal ñu wax ne même bu dee koo xamante ni dafa ëmb sax danga koy génnewaaleel ki nga xam ne dafa ëmb bu fekkee ne ëmb nag da ko koy génnewaaleel tamit comme li ngay génneel ñaar rek génne loolu it bëgg a gën a rafetal rek ak matal am na ci ñu àgg ci lool am ñu na xam naa ku ëmb moom jaru koo génnee waaye ñooñu ñëpp da nga leen koy génnee li koy génnee nag mooy yonante bi salaa salaam daf ko daan génnee ci ñeenti mudd ñeenti mudd mooy loxo yoo xamante ni guddul lool ay gàttul nga tibbu tibbu tibbu ñeenti yoon ba mu mat loolu lan wax am na borom xam-xam yoo xamante ni am na pot yoo xam ne daanan ko jëlee màkka muy pot yoo xamante ni dañ ko ci daan natte yooyu boo ko nattee ñent yi mooy doon muurum ko mooy doon kenn ku nekk nga génneel ko yaa xam nag la nga koy génne bu fekkee dugub nga am nga koo génne ci dugub ci nga xam ne moom la ñuy lekk fii bu dee saaño dugub yi nga xam ne moom nu gën a lekk fii bu dee ceeb yi tamit nga génne ko ci ceeb bi nga xam ne ceeb yi façon yi ceeb yi dafa bari am na yoo xamante dafa xaw a seer yoo xamante ni dafa digg doomu am yoo xamante ni dafa gën a tuuti njëkk waaye bu fekkee da koy génne fii da ngay seet bi nit ñi gën di ëpp lu ñuy lekk mooy bi gën a digg doomu boobu nga koy génne nga génne ca lu toll ci ñaari kilo ak libar moom mooy li gën a mat daal kenn nit ku nekk nga génneel ko ñaari kilo ak libar loolu mooy li gën a mat bu fekkee ne li gën na ak ñu gën cee soññ mooy ñu génne ko ci xaalis xaalis mooy mooy nga xam ñaata la ceeb boobu di jar kilo bi ñaata lay jar ñu ne la nàngam nga génne ko njëgu kilo ak liibar ñaari kilo ak liibar nga génne njëgu ñaari kilo ak liibar nga ko ndax li tax ñu gën koo bëgg a def xaalis mooy Omar ibnu Abdou Aziz am nay jamono dafa waxoon ne na nga koy def xaalis moom moo waxoon ne na nga koy def xaalis ndax booba gis na ne nit ñi xaalis leen gën a ittewoo te nit ki bu fekkee da nga koo jox muurum koor ci jamono yooyu mu dem di ko jaayewaat ak lu mu ko mën a mën a jaay du ko jaayee la ko la ko jënde woon maanaam kilo ceeb ba bu demee di ko jaayewaat faaw mu wàññeekuwaat léegi nag bu dee waxtu woo xamante ni waxtu woowu la te mën naa am mu koy jaay du gis ku mu ko mën a jaay te gis boobu dañoo bëgg mu doon feet kenn bañ a laaj kenn bañ a nekk di boo defee loolu bokk na ci li tax ikkamu muurum koor jóg ñu war koo def bu ko defee nag li gën mooy ñu génne ko ci xaalis génne ko ci xaalis moom mooy li gën ku ko mën a génne ci xaalis daal moom moo gën nga xool kilo ceeb ñaata lay jar nga calcul ñaari kilo ak liibar nangam la nga génne ko par bopp nga génneel ko ku nekk nag bu fekkee jàng bi liggéey ci yow mën nga koo génneel wala bu fekkee koo xamante ni ab surga la bu nekk ci yow it nga koo génneel ñooñu it dañoo wax ne jox leen ko sax xañ na mooy li gën ndax ñaare ñu mel noonu ñu ñàkk lay doon ñoo xamante ni génne ko jox leen ko lool tamit war na mën naa ne ñoom it mën na leen koo jox ah la neexee mën nga koo génnee képp koo xamante ne ab dund ak yow la war kon ñu soññee ci bu baax nag teel koo génne lu mat ñaari fan la ko jiitu bu la neexee tamit bala noo julli ji bu dee xaalis moom xañ na. waxtu bu mu ñëwee dana danañ ko mën a kii waaye la ci gën mooy bu fekkee nag koo xam ne daf koy génne ci ay ceeb ak ay dugub ak yooyu moom xam naa teeloon koo génne moo gën ndax kooko man koo dem sànq mën caa am lu mu feetoo mën caa def la mu def mu def ko bu dee si tamit bu ci teeleet na waaye bu gën ngaa yeex daal mooy moom bala ngaa julli ji ko génne bala ngaa julli li gën mooy boo jullee suba ba noppi daal nga génne ko waxtu woowu moo gën koo ko mën ngi ciy soññe bu baax nag ngi ci soññe ñëpp nag bu ko defee gërëm ñëpp di sant ñëpp ci wàllu woowu ñu def ko ndax loolu it bokk na ci liy dëgëral lislaam ak lislaam dafa bëgg loolu tamit wàllu solidarité loo xamante ni boo ko génnee day laabal sa xool te defal say kii loolu lu jara euh, def la kenn jëru ko waru koo sàggane mel ni weeru koor ba noppi def ko moo gën kon daal loolu mooy ci bi ñu fàttali ne xaalis daal moom ci lañuy ñuy gën a soññe ku mën a génn ci xaalis moo gën nga seet ñaari kilo yi liibar lu muy jar nga génn ko ci xaalis ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen ñaanal yal na ñu yàlla defal kooru jàmm wasalaamualeykum wa rahmatullah wa rufqati daara ahlul xayri wal xabari wa huwa al wasilatu li dunyan wa axiratan